profil am tur baa ngi noonu waaye keneen la def <clears throat> gis nga gis nga li ma taalibe bi monteel dañuy dañuy fanaane déggu dégg saaga ba fajar léegi seen dossier démb yegsi na fii waaw sama sama goro jël foto bi ngeen ñu monteel foto photo yoy ngeen montel les les activistes moy jambari yi jàmbar yi jàmbar quoi ñi nga xamanteni ni nek tok ci deug jël deug te daal di ciy dëgg seen tànk sen seen ndekete ba fi sa manam bi ci sama goro mais biñ may nan eh eh go go deng sen ciowli daal yegsi na ba fi quoi ma leen ne wax man may dem xey deng nga sama dépasse bop toppatoo sama njaboot boo ngeen amee problème indi leen ko ci man mais am na sëriñ bu nekk Touba sa Mbàkke Mbàkke nee na dafay porte plainte hmm? nee na dafay porte palante yéen xanaa xamu leen Macky Sall dong ngeen mën a corrompre Sénégal la ñu nekk mais yéen mais ñoom ci seen fenkat la sax sëñ bi Mbàkke Mbàkke bi fenkat la parce que yow da nga ni da ngay porte palante te daañ daañ ma génn réew mi yow bu la neexee nga dajale sa taalibe yi ñoom Balla ñoom Balla jaañ la xaw ma imbécile boobu noonu dégg nga ak euh, euh, Medina Diang genre yooyu nee na dañuy porte plainte quoi yéen kon léegi da ngeen bëgg ni seen doole si sax yegg si na fii États-Unis quoi léegi yow danga tiital nit ñi ne da ngeen ma porte plainte pour pour lan saaga kan sëriñ ah léegi indi leen saaga yi te sax bu fekkee damaa saaga sëriñ maa tey man dégg nga parce que débat boobu ngeen indi man xawma ko man xaw ma lan mooy këmit du ma ci xuus du ma ci jàll xaw ma luy loolu mais dama xam ni am na ñu gën a bon këmit Sénégal mooy koo xam ne dafa ni dafa dafa àttewoo diine ne dafay dafay dafay yeggale mission rasulullah ba noppi di fen ak di ànd ak gouvernement bi ak di sos kooku moom man sax bu dee na këmit kooku moo ma gënal këmit maanaam këmit moo ma gënal ki nga xamante ni dafa àttewoo ci diine ba noppi di fen ak a sos waaw du ma ci xuus nag parce que man li ngay ñuy wax ni di indi ci table bi daf ma jaaxal kan moy kemit daf ma jaaxal quoi mënumaa wax ci luma xamul dama kemit kemit, rek dégg kemit kemit xamit xamit kemit kemit xamit xamit te sëriñ yu gëna bon ño xamni ne dañoo woote wo ci l'islam ñu gëna bon zif sax ñu ngi sénégal ñu gëna bon zif, ndax yow mënta yow mëno bax mënoo ni yow da nga nek l'islam ba nopi yow talibé bi nga ni dañ la tàggal ci l'islam ku ñu tàggat ci lislaam doo créer doo seet loo xam ne dafay lakk këru jàmbur nga ñëw di ko indi ci taabal bi ku ñu tàggal ci lislaam gisoo ki ma leen wan léegi taalibe bi ma leen ubbee noonu te audio yi su ma ko ubbi woon ay saaga kese la ay saaga kese la ñu tàggat la ci lislaam ba noppi yow sa lépp doon ay saaga man kooku jaaxal na ma gis ngeen lislaam bi buñ ko jaare la woon yoon buñ leen tàggatoon ci lislaam kon du ngeen def lii ngeen ñu def tey Macky Sall sax du nekk fii di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu kii di ñu fontoo di ñuy sànni fu ne mu boo kii fa léegi waa ji nee na dafay plainte plainte na day plainte Sénégal hmm? bëgguma sax xam tur bi quoi parce que am na ñoo xam ni ak loo mën a sant sant yàgg golo gi dee ca àll ba laa yemale wala xaj bu dee ca àll ba laa yemale da ngay sóob indi leen li ngeen bëgg ñëw leen da nga ñuy porte plainte yéen yéen a yéen a contrôlé tamit États-Unis ñëw leen ñëw leen ngeen ngeen xool yéen bu ngeen demee bu ngeen ñëwee di ngeen fekk seen taalibe dossier am ci taabalu FBI bu ngeen ñëwee seen taalibe yii di saagat surtout Medina Jang ci boppam mu jël ay photo jàmbur photo doomu jàmbur dem dugal ko ci publier ko ci euh, euh, Facebook bi ah kon sëriñ boobu noonu dem porte plainte dana ñëw fekk taalibeem dana fekk ci bureau FBI dossier taalibeem yu toll nii dégg nga fontoon nit ñi yéen yéen moom nit ñi wala yéen yéen moom àdduna bi xeex bi du foofu xeex bi du fii xam nga fan la xeex bi xoolal fii ngay ñu mujjee fii ngay mujjee yow yow miy woote woo taalibe te kenn du la faale kenn du la faale laa la wax nii kenn du la faale ñoom ñoo ko wax de waaw fii ngay mujjee ñoom yaa ngi nekk Maroc bëgg gaa yi wutal la visa nga génn sene nga génn Maroc yow Medina Dieng ak ku mën a doon mais bu ko wutee noonu ma yëfu maam Mor bi ngay def mais du sottee fii sama côté du sottee foofu waaw affaire u maam gisoo bi mu demee ñu taal jël fexe ba tëj Assane Diouf mi te am na sax dëgg ci seen kaw dégg nga léegi yéen sëriñ bu sàcc kenn amul droit wax ko ku ko wax rek ngeen laaxaale ci suñu maam yépp sëriñ bu njuuj njaaj gis nga mi ngi nii kii taalibe la wax na leen ko ndax ñoom alal bu bëri bi ñuy sàcc ñu dem nañ ko faj ko yow miy woote woo taalibe lii nii sëriñ bi ci mënul dara nan la la mën a lay dara yéen a bëgg ñu déggu ci wax yooyu ah. kon bi ñëpp a gis nañ ko duma ci continuer di ko teg fii dégg nga mi ngi nii. taalibe la jàmbaaroon na ci yoon wi gis ngeen monsieur bi bi ko dal ba mu toog fii nekk ci seen dëkk di leen woo pour ngeen faj ko pour ngeen dimbali ko est-ce que waroon na yegg fii sax ak yéen est-ce que waroon na yegg fii ak yéen ak milliards yi ngay dégg yépp sama gars yi ñëw leen ñu utiliser suñu xel yi ñëw leen ñu utiliser suñu xel yi da ngay am ay jafe-jafe yu àdduna duñ la ci mënal dara duñ la ci mënal dara dégg nga yow sa sa défendre ak ku mu mën a doon sa défendre yi ngay défendre yëpp lan la xoolal ñaata sénégalais ñooy dee ñaata sénégalais ñooy dee mais man yéen ñiy xeex dama bëgg comprendre maanaam ñiy xeex mooy ku mën a kuy def liveur dama bëgg comprendre yéen da nga ñuy xeex pour Sénégal avancer wala da nga ñuy xeex pour Sénégal dugg ci guuta bi dégg nga ngeen bàyyi fi lu toll na dossier di dugg ci ay dossier ay ay këmit ak ay xamit ah bu ngeen lan mooy loolu luy luy këmit man xaw ma luy këmit ah li ma xam ni moo gën a bon këmit mooy ñii ñiy seetaanee askan wi gouvernement bi di leen duma ñoo loolu moo gën a bon këmit mais ah xaw ma sëriñ xam nu mu tudd sëriñ Xaadim Mbàkke la xaw ma nee na dafay porte plainte waa léegi nee nañu xaw ma yow yow boo porte yow dañ laa nettali taalibe bi ñëw nettali la xanaa waxu la ni la yor naa yor naa téeméeri faux faux profil yu may saagawee wala sëriñ bi yow yaa yebaloon taalibe bi avant loolu taalibe taalibe bi naan la léegi ñi ñooy saaga sëriñ wala kii mooy saaga sëriñ dégg nga gis ngeen paas bii ñuy wax les activistes ña fa nekk du bëri nañ duñu benn nit man su ma jëlee sama responsabilité ñëw wax live fii li ma ciy def lu bëri loolu la ñëw def live kon nag bu keneen posté ak lu mu mën a posté sama yoon nekku ci man loolu laa jàpp quoi loolu du tax ma génn ci benn paas parce que kenn ku ci nekk li ngay def yow yaa xam lan moo tax nga di ko def du ma tax a génn ci benn paas dañoo fa nekk ay dox daje gisaguma fi kenn li ngeen may wax ni yëpp gisaguma ci kenn ku mel noonu waaw bu waxtu julli jotee ñi ñoom ñëpp nag laa la wax damay dégg ñu ne ñu ngi dem julli ji léegi yow sénégalais lam daar am nga loo xam ne metti na la ci politique rek ngeen xëy bëgg a yéefaraloo doomu aadama bi te yéen bu fekkoon ne jàngal nañ leen lislaam du génn kenn ci lislaam du ngeen yéefaraloo kenn lislaam bii ñuy wax ni moom la ñu moom la ñu moom la ñuy roy ci Sénégal bu fekkoon na jàngal ngeen ko taalibe yi ndax waa jooju noonu dana jël ay photo jàmbur dégg nga muy Medina jàng ak ku mu mën a doon photo doomu jàmbur di ko monter ci Facebook bi di faj meram ak di ci saaga ak di defar ay faux profil sëriñ bi maanaam ndax wax nga ko sëriñ bi waxaale nga ko sëriñ bi sëriñ boobu noonu naan dafa porte plainte ndax moom waxaale ngeen ko loolu ah léegi yéen damay dégg ci seen wax bis bu nekk ngeen naan waa ji amul xam-xam amul xam-xam ñoom ñoo am xam-xam lan moo tax kenn gisu leen ngeen xeexal senegal yéen ñi am xam-xam lan moo tax gisuñu leen lan moo tax gisuñu leen ah te ke ñu naan dañuy porte plainte yépp lu leer laa la ñoo koo ci dem fekk ko mu def euh, saako miche ba saako miche ba dégg nga man mosuma lor benn doomu aadama sama kii jëluma benn décision boo xam ni sénégalais danañ cee lor mosuma fal benn président boo xam ne mi ngi noot sénégalais yi ah? te bu soobee yàlla noonu la ñuy noonu lañ koy jàppee du ñu lor benn dégg nga léegi waa waa fanati fanatique la xaw ma fana xaw ma nuñ koy waxee fana rek lañ koy wax ci angale mais fanatique wu euh, euh, kii euh, yooyu noonu bëgg attaqué yi bokk Pastef bëgg cee profité quoi. nee naa leen gañeegu leen xeex da ngeen tàddal xeex bi saa yu ñu demee bu ñuy demee ba yéeg ci montagne bi bay bëgg a yegg rek benn xeexkat jàppaat suñu tànk diriwaat ko ñu wàccaat mais dañuy continuer dégg nga lu mën naa leen génneel fii foofu sax duma fa yegg parce que saaga saaga la rek saaga moom mënta weesu saaga mais dëggu dëgg lañuy teg fii ci taabal bi man su ma saagawee benn doomu aadama buñ ma ko tegalee dinaa ni leen dinaa ko assumer ni leen man maa saaga doomu aadama boobu man maa ko saaga du ma tax duma tax a daw duma tax a def leneen ñëw leen ñu teg mbir mi ci yoon li ñu war a xeex bëri na li ñuy war a xeex sama gars yi bëri na li ñuy war a xeex du jeex ñoo leen bàyyi suñu affaire affaire léegi yéen bu ngeen profitoo ci man day tey yow taalibe nga sa sëriñ sax yow boo ñëwoon di ko wax waxi monsieur ba moom moo la waroon arrêté bu fekkoon na ci yàlla la gëm yàlla la yàlla la gëm wala sa sëriñ boobu noonu ngay ñëw di booleel xam na yàlla du la digal leneen du la digal leneen mais yéen ni ngeen def monsieur ba bu ñu nu ñu toroxalee doomu aadama dégg nga parce que sëriñ ba naan dafa dem yéen dem ngeen ba sol ko mu ni dafay porter pelante kon kooku noonu matul sëriñ waaw léegi nag billaahi day te xam naa sax dafay duul ñemewu ko sax ndax boo yow boo porter plainte sulli fi fekk fi say dossier xam nga sëriñ boobu noonu moo leen gën a xam li xew li ma leer ba leer mën na woote renseign renseigné wu say dossier taalibe dong ngay fekk ci bureau FBI say dossier taalibe kese nga fay fekk lu leer laa lay wax nii dégg nga lu leer laa lay wax nii bàyyi leen seen dof-dof lu bii sénégalais yi ñun amaluñu defuñu teguñu benn sénégalais problème benn sénégalais yaakaaruñu ñu war ko au contraire dañoo bëgg sénégalais yi di mën a bu ñu feebaree faju bu ñu bu ñu xiifee lekk dégg nga comme ni ko doomu sëriñ bi di mënee ak waa kër sëriñ bi ak ak politicien lii moo am Sénégal moo tax ñu koy wax bu ñu nekkee ci dëkk ñu gis sëriñ bi bu jaaxlee bu jaaxlewee euh, gouvernement bi ñoo jàpp yóbbu orop faj dégg nga dégg nga sëriñ bi amul problème mu àdduna amul nga gis sénégalais yoo xam ne bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu ndékki am na ci ñoo xam ne sax noonu la ñuy jaaree faf ah sénégalais boo xam ne bu feebaree du faju wala mu am benn émergence pour hôpital duñ ko seetaan mais léegi yéen ñu toog di seetaan loolu suñu àdduna bi yëpp ngeen bëgg quoi yéen ngeen nekk fii di lëmbe àdduna bi lu leen neex ngeen def da ngeen bëgg rek ñu croiser bras suñu loxo rek noppi ci problème yi ñu dëkk boo xam ne dañoo jënd journaliste yi lan moy sen problème li nga ñi xex la bëgg xam li nga ñi xex la bëgg xam man lool rek la bëgg comprendre lan nga ñi xex da nga ñi xex pour Macky Sall fi wala lan nga ñi xex mënuma ko comprendre de yeen yeen yow yow mi nga xamante da nga jëg pour xeexal sénégalais waroo won sétane ba benen nit di ñëw di la jaxasek ak ku mu mëna doon ko xamni yeen yeena bokk benn wala léegi da ngeen bëgg léegi na ñëpp suulu yéen kese ngeen nekk ci internet bi di wax bu fekkee ne loolu ngeen bëgg ngeen wax ma ko jaral na leen ko da ngeen bëgg ñëpp noppi ngeen wax man bu ngeen bëggee man ma defal leen ko mais wax leen ko rek ah, maanaam euh, directe leen ak nit ñi rek directe leen ak nit ñi man da ngay ñëw direct ak man da nga bëgg noppiloo ñëpp wax yow lan ngay xeex wala da ngeen bëgg ni saa yi ngeen yaakaar ne xeex bi am na ñuy gañe rek ngeen ñëw ñun dañoo woote booloo man de booloo laa woote mais saa yu ma gisee ni woote nañu booloo dana am ñu jël ñu diviser wu ndax lan kon yéen li nga ñi xeex damay jàpp ni yéen bëggu xeex bi ñu dem ba ci cëppaandaw ba kon da ngeen bëgg xeex bi yem ci wax ji kese lan la ñuy teg ci taabal bi man ci loolu lay woote mais man problème mu sëriñ sax du sama problème léegi ba coow li am fan yi benn oto la benn oto boobu noonu man damaa am ay question mais kan laa koy laaj ñemewuma ko sax laaj li ma yor ci ay question te bëgg leen ko laaj ngir yàlla du ngeen ma sax waye falal ngeen boole seen benn sëriñ mu ñëw ma mu ngeen mu jox ma ndigal ngeen jox ma sax ndigal ma laaj ko question yi ma soxla yépp yi ma soxla yépp ngir yàlla yonente bi mais mais li indi coow li fan yi mooy oto oto bu sëriñ sëriñ suñu maam amoon mais foto oto bu mu amoon loolu lan moo ci nekk man boom jàpp naa ne dara nekku ci oto boo xam ne suñu maam amoon na ko ah am na ñu ma jox exemple nit euh, bu bu yonent bi nekkoon fii tey bu fi nekkoon tey ci ci kaat kaat yi lay war ndax ba mu fi nekkee ci ay jamonoom ci gilleem yi la doon war ak yooyu d'accord na mais tey suñu suñu maam ci ci dundam suñu maam ci boppam ci dundam lenn moom xamal naa leen ko bu fekkee ne da ngeen ñuy wax pour man ma noppi ci sàcc boo xam ne wax nañ ko fii sëriñ boo mën a doon gisoo oto bii nii suñu oto maam la wala du suñu oto maam loolu kay jarul saaga jarul leneen suñu maam ci dundam amoon na oto bu mel nii amoon na oto bu mel nii ci dundam comme dund ñëpp la rek tey tey suñu ñiy dund tey ay sëtam ñu ngi yor oto yu gën a garaaw yi sax yaakaar naa yu war a gën a seer yi amoon na oto bu mel nii kay léegi loolu lan moo ci indi jëfaru lan moo ci indi dem defari plainte dégg nga maanaam nii nii rek fa oto bu mel nii suñu maam borom Touba amoon na oto bu mel nii léegi wax leen ma lan moo ci indi lenn li lan moo ci indi lenn lii lan mooy problème bi loolu laa bëgg comprendre léegi lan mooy problème bi amoon na ko léegi kon lan moo tax ñun nanguwuñu bind histoire Sénégal comme polémique lay indi saa yu ñu ne bind leen histoire Sénégal ngeen ni kenn du ko bind hmm? ba nit ñi sax ñemeetuñ ci wax mais ñun bu ñu sañoon ñu bindal ñu suñu histoire maam ñu xam ko bu ñu sañoon ñu indi bindul ñu waxuma la sax téeméeri at yi passé mais suñu junni junni at ñu bindal ñu ko lan la ñuy nëbb kon dafa am lu baaxul ci histoire bi lan la ñuy nëbb ci histoire bi dégg nga beneen bi mooy nee nañu euh, Akhenaton moo ñuy waxloo mag mu toll na ñun nga xamante ni man chaque jour su ma defee live ba noppi sax gars yi mën nañoo dal xëy na sama kaw parce que dañuy bëgg bala ñuy def live ñu ñëw toog waxandoo ko dégg nga ba noppi doo koy teg mais lu mel nii moo tax ma di ko moytu ndax maanaam fenkat yi ak seytaan yi looloo tax ma ni man su may wax damay waxal sama bopp dégg nga su may def damay defal sama bopp su ma duggee fii taal live bi ñoom ñëpp kenn yëgu ko ñoom ñëpp fu mu toll nii kenn yëgu ko ni ngeen ko yëgee ñëw bokk fii nii la ñu ñëw toog fii teewee ko léegi ngeen ni ma maanaam moom moo yor bouton maanaam ku toll na euh, père Ousmane Dramé ah kilifa gu toll na moom akana Akhenaton dana ne ko defal lii wala waxal lii yéen da ngeen amul lay te ñi ko doon def ñu duggoon ci live tunkara bi yëpp mooy mooy saagakat yooyu yor yor deuxième profil te nee nañu kilifa yi ñooy wax ak ñoom de once again ba tey awma lu ma doy quoi encore ba tey awma lu ma doy ñoo xam ne ñooy dugg ci biir euh, audio yi fii def foo profil Medina Dieng ak waajooju nekk Espagne fenkat boobu nee na ku mu waxal enregistré na la ah nee na woo na woo na ñiy def live yu bëri mais ñëpp enregistré na leen xoolal nit ku jub yow nit da nga ñëw wax ak yi moon nit sax ci ci ci teraanga ak te euh, kii euh, yar teggin teraanga nga ñëw enregistré ko yóbbu quoi kon yéen da ngeen am da ngeen am mission bi ngeen ñu dox te waxoon naa ko te dëgg baa ngi ñëw nee woon naa am na ñoo xam ne ñu ngi ci suuf di liggéey la ñuy liggéey mi ngi nii gis ngeen nag nu ñu gaawee dajale léegi yéen loolu lii ngeen def nii lii ngeen def nii pour yàqate ñu lan moo tax jaralu leen ko pour ngeen génn Macky Sall ci réew mi c'est parce que yéen APR ngeen c'est parce que lan ay karimiste ngeen parce que démb am na karimiste yu dugg ci live Tunkara bi naan waxoon naa la ko naa naan ko waxoon naa la ko xoolal ma loolu waxoon naa la ko ñu sax seen bopp ndeysaan waxoon naa la pour ñoom bu ñu paree fu mu toll yi boo taalatee live bi benn nit du la seetaan pour ñoom bu ñu paree ci yow léegi yéen lu ngeen bëgg seen problème yépp mooy euh, kii ma fanaanee saaga loolu la wax nee na man duma sax seetaan duma leen sax seetaan moom <laughs> du ma leen seetaan yéen léegi léegi noo looy amee lu la mer ba may ba may saaga doo ma seetaan man nee naa leen live bi may def nii bu ko fukki nit doon seetaan sax am danaa ko continuer di def ba keroog may doyal ci des def ko léegi yéen ngeen naan da ngeen may porte plainte ak di di di yónnee liggéey tamit nee na maanaam tiital nañu sama goro sax ñooñ de dañ may liggéey bu ñu porte plainte bi mënul dox dañ may liggéey yéen da ngeen dof xëy na ñooñu xamuñu lu xew mais da ngeen dof laa leen wax nii li leen wax ni leen man affaire dama lay liggéey ragaluma ko ragaluma ko man protection yi ma yàlla jox lay utiliser pare naa ci du ma takk du ma naan duma takk téere du ma naan du ma du ma takk téere du ma naan saafara mukk ci àdduna waaw waaw benn yoon laa mës takk téere sama àdduna mi may ñëw fii ci dëkk bii dégg nga ñu jox ma téere dégg nga ma dem di jaay téere boobu dañ ne ma woon doo je duñ la jàpp duñ la jàpp ci pëlis pëlis du la jàpp yaa ngi may dégg ma dem di jaay pëlis ne ma toŋaañ yóbbu dégg nga ca biir kaso ba laa daggee téere ba boobu laa pare ci téere te benn yoon la woon ci sama àdduna benn yoon la woon ci sama àdduna waaw te xam nga mënuma ko woon sax dañ bañ ma koy jox sax dama bañoon xëy na looloo tax jàppul dégg nga li ma la wax man man yàlla laa yaakaar ak yonente bi yàlla ak yonente bi dégg nga di fontoo nit ñi yéen da ngeen xanaa ñun ñu dugg kaso ba doyal ngeen ñu fontoo nit ñi yow Balla Diagne yow lan ngeen war a mën ci man am na benn waa ji woote Espagne nee na daañu woote fii xëy na yow yaa gën a nekk États-Unis na la gaa yi yebal bu la gaa yi yebalee boo ñëwee ma téegal sa ndey dégg nga li ma la wax ak ku mu mën a doon ak ku mu mën a doon def nga live nag temps yaa ngi dem a dugg sama caaya di jéem a dem di ñëw sax pour nekk ak xarit ak man ci sa ci Facebook bi dégg nga li ma réew mi jaral li mu leen jaral ci seen sëriñ yi moom réew mi li ma jaral moo ma ëppal loolu téeméer yoon doome xaj yi ngeen doon yéen yéen moom nit ñi maa ngi jégalu gars yi ci saaga yi ak ku mu mën a doon wax naa leen ko nag de wax naa leen ko du ngeen ñu fontoo dégg nga bu leen ñu fontoo nee naa leen mënu leen muusaka waane ba du ma wax ci sëriñ bu sàcc moo xam muy sëriñ bas moo xam ku mu mën a doon mënu leen muusaka waane ba du ma wax ci sëriñ bu sàcc bu dee ne loolu mooy saaga mag ñu baax ña yéen yéen da ngeen yeb sax suñu maam yi quoi imbécile yi da ngeen yeb suñu maam yi neen la sët di sàccee suñu maam joxe woon ay exemple ne sët maanaam danañ dem ba ci jamono maanaam koo koo xam ne dana doon sëtam sax bu fekkee ne nekkul ci li mu nekkoon du sëtam du njabootam dégg nga mu sàcc alalu sénégalais yi ngeen ne léegi kenn du ko ngeen bëgg toj internet bi quoi ngeen bëgg nag léegi kenn du ko fi wax quoi ku fi sàcc dañ ko wax ku fi njuuba njaaj dañ ko wax laa la wax nii ma léegi ci biir loolu ma ni ma commentaire démb ci live bi tunkara bi li may wax ne déglu leen bu baax gars yi li ma leen ñu wax ni seytaane lañu ma ni ma bind ni sëriñ bu sàcc dinaa ko wax rek waa ji dugg gis nga bëgg jël sama wax ji indi ko ci sëriñ munta munta xaa mu ni mu ni mu bëgg ni maanaam mel na da maanaam wax jooju ma wax rek jël na ko pour saaga pour jaarale ko ci sëñ xaa mais xoolal ma seytaane yi ñu ko seqal xoolal ma seytaane yi bëri du leen may xoolal duma leen may dara nag dinaa leen tontu de parce que gars yi dañu naan bu tontu bul tontu mais damay tontu les dof laa foog ma tontu leen dara duma leen ko may nag dara duma leen ko may te wax naa leen ko ku taxaw sama kanam naan ma affaire sëriñ ma téegal sa lu bon man wax naa leen ko duma leen may dara bëri ngeen taaliba fépp yebal leen ko sori ma billaahi bu ma génnee fii léegi dinaa gis seen benn taalibe fii nii léegi su ma wàccee ci suuf seen benn taalibe dana ma yomb romb di dawal taxi wala lu ma mën a doon ah bu ngeen bëggee ak problème ak man góor ak góor ñëw leen yéen yéen am ngeen ay taaliba yu nekk fii kay indi leen leen chaque jour ma wax leen loolu boo ñëwee di ma fontoo dama lay jox sama adresse balaa dara di xew bu coow li naree bëri sama adresse laa lay njëkk a jox kooku nan la nëbbatu man nëbbatuwuma de li may xeex nii da nga ñuy soob rek loolu nga ñuy wax rek pour gars yi seen seen sëriñ yi fa lay naan sama sama taalibe bi pourtant jàmbaar la de dara duñu ko def taalibe du ñu yëngu du ñu sax ŋaang chaque jour américains yi saaga seen ndey fii du ñu ñemee xeex man nag mosuñu maa saaga te xeexuma mësuñu maa tooñ fii ci réew mi te raaguma ba naaw kenn yabu ma damay raag man newuma ci seen tapet yooyu de dégg nga fii la ñuy tuur ja ñaata ñaata taalibe lañ fi jàpp suul yóbbu suuli dégg nga napp rey leen neew ma sax loolu lañ leen ko defee dégg nga man fu ma toog fu ma nekk sama bakkan fu ma fekk falaa koy joxe fu ma fekk rek falaa koy joxe dégg nga lu leer laa la ñuy wax nag lu leer laa la ñuy wax xanaa léegi la rek xanaa léegi la rek di fontoo nit ñi ay question la ñu yor man damaa yor ay question yoo xam ne damay dégg lu ne dama koy dégg question laa yor yu dul jeex yéen ñanguwu leen sax bàyyi nit ñu joxe question yi quoi ngeen an ngeen question tontu nga tontu ci question bi kii dafa am lu ko jaaxal tontu leen ci question bi lan moo ciy problème suñu maam yoroon na oto léegi wax leen ma lan mooy problème boobu ci jamonoom yoroon na comme oto bii nii léegi lan mooy problème tontu len ci mo gën si yi ñuy def ñun yabuñu suñu mam yabuñu ko amoon na oto kay fierté la amoon na oto lolo kay kenn da lan mo ci nek legi lan moo tax ñu wax histoire suñu mam yi lan moy suñu problème man suma ragalé li may wax tok fa di joy moma gënal ubi écran bi fii tok di joy lay def toog di jooy dégg nga ma ni la porte plainte def leen ko def leen ko léegi def leen seen porte plainte te xam naa ni sax sëriñ boobu dafay duul dafay duul mais na ko maanaam da koy wax rek pour yaakaar ni bu ko waxee nit ñi tiit rek ne leen voilà yéen gaa yaa ngi leen yéen da ngeen dofana nit ki dugg police duggati police da ngeen dof du ngeen xool leneen lu ngeen teg ci taabal bi hmm? xool leen leneen li ngeen teg ci taabal bi dem leen ngeen xool dem leen sénégalais yi ñoo am problème soxla ñu war ko régler bu ñuy xeex pour Sénégal nous leen teg dëgg gi ci bi man pour ay vie man du pour ay talibé ñëw ñëw di ma seetaan man xeexuma lool man pour nous. ñu di ma lu leer la ñu wax ba ren fii ba 10 personnes di ma seetaan dinaa sama ngor ci mais à chaque fois rek kii yow ñaata même kii ci suba sax taalibe bii di ma saaga ci suba gi nii loolu la wax ah affaire affaire ku lay seetaan quoi affaire jalousie wala yow léegi da ngaa mënoon wax mënoo wax ñëwal toog ci écran bi yow nan nga mel ba nga ragal a ñëw toog ci écran bi ñëwal nga toog ci écran bi bàyyi leen si ñi ngeen ñi def saa yu ñu xeexee bay bëgg a yegg ci kaw rek ngeen ñëw indi benn programme ah da nga ñuy wax saaga saaga saaga am na ñu bëri ñu fi nekk di saaga. dem leen ngeen dem ak ñoom ñooñu foofu noonu ñun saagawuñu dëgg la ñuy wax dëgg la ñuy wax laa la wax sama waay dégg nga dëgg gi nekk ci taabal bi ku mel ne Cheikh Yérim Seck ñëw bëgg ñoo manipuler ñu ni ko déedéet doo ñu manipuler doo ñu manipuler doo ñëw la say say problème personnel fii nga am problème biñ la téyee ci kaso bi Marème fay Sall moo doon téye say njaboot ah moo doon moo doon xool say kii kon yéen réeroowu leen bu leen ñu fontoo yéen journalistes yi dégg nga problème yooyu la ñu am ñëw leen ci wax mu ngi nii ah, léegi Cheikh Yérim Seck commencé di gërëm population bi quoi ban population ngay gërëm ah ban population ngay gërëm waxal ci Ali Kalaj bi ni ngeen def complot pour ña euh, perteloo sonk élection yi wax leen ci Ali Kalaj boobu noonu wax leen ci monsieur ba boobu waaw kii tudd fi abi 666 sax mais abi abi li muy wax direct la lan moo tax demu leen attaqué ko ñun dañuy wax ci problème mu sénégalais yi nan la sénégalais yi mën a xiif ba lekk faju ñu gis sëriñ bu sàcc ñu ni ko dafa sàcc te dañ ko setal sax anyway parce que affaire bi dañoo am doole daf ñu ëpp doole fu mu toll nii parce que yéen ñi war a wax yéen yéen a lànk bañ a wax loolu tax affaire bi dañu ëpp doole lu dossier bu ñëw naax saay yéen yéen a ngi gis am na ñoo xam ne li mu leen jaral te bëriwuñu li mu leen jaral fii jaral na leen nekk fii di sos di fen mais sénégalais lambda bi affaire euh, maanaam xeex bi jaralu ko dara moo tax gisoo gars yi dañuy xëy di attaque ñaata nit ñoo fi nekkoon di xeex xëy xëy rek daal di teggi seen tànk ndax yéen yéen a nekk di leen seetaan léegi nag benn minorité bu ndaw ñooy nekk ci réseau bi parce que ñi nga xamante ni ñoom la ñuy xeexal dëgg-dëgg amuñu sax njëgu lu ñu seetaanee écran ñi ñuy xeexal dëgg-dëgg amuñu njëg boobu amuñu ko amuñu ko mu ne joxel sa adresse ñaata yoon laa joxe sama adresse loolu laay bàyyi sax Cheikh ñas joxel sa adresse ma ne ko loolu sax laay bàyyi joxe sama adresse woo ma ci suuf ma jox la ko woo ma ci suuf ma jox la ko ñaata taalibe ñoo fi def ay dinañ la rey dinañu fay ay nit ñu ñëw rey la ma scrim saat dégg nga boole ci dossier yi mu dem FBI ah ñaata ñaata parce que man bi may bi dugg ci xeex bi dama toog di seetaan xam naa li xew lépp ñi doon nekk di xeex ñu leen ñuy diaboliser ba ñu bàyyi mujj xëy rek gedd léegi nag man xeex bi man man lay neex rek ma jekki-jekki jël jël berek jël jël ah man lay neex rek ma jekki-jekki jël pause mais saa yu ma safee wax pour ci réew mi wax na leer dinaa wax waaw Cheikh ñas léegi américain bi ñu rayoon fan la dossier bi toll Cheikh ñas fu dossier bi toll boo ci amee lenn rek mën nga ma ko soroxal foofu ci commentaire yi dégg nga ñu ngi rey sénégalais yi ah sénégalais yi ñu ngi leen ñuy rey chaque jours chaque jour ñu ngi leen ñuy mais ñoru leen ngeen may rey ak ay sama sëriñ man lan mooy sama yoon ci seen sëriñ lan mooy sama yoon ci seen sëriñ wax leen seen sëriñ ñu ñu bàyyi ñu ngir yàlla na ñu bàyyi fen na ñu bàyyi sàcc nañu wax dëgg gi nañu wax Macky Sall dëgg man loolu laa leen wax bu fekkee ne loolu mooy saaga sëriñ kon maa ngi ci maa nga ca biir boole leen ma ci seen dossier maa ngi ci sa biir mais gisoo li mu leen jaral li leen xeex bi jaral yéen lan moo tax sénégalais yi jaralu leen ko jaral na leen ba ba dossier maanaam ba sama goro sax jot ci affaire yi ñu ngi ñu ngi leen ñuy bëgg plainte loolu jaral na leen ko jaral na leen ñu ngi def nee nañu dañuy dañuy porte plainte dossier FBI jaral na leen ko yéen sénégalais lam daal lan moo tax yéen senegal ci boppam jarul leen ñu jëlee fi Macky sàll lan moo tax jaralu leen lii lii gars yi daj nii lii gars yi daj ci ñun bëgg ñoo bëgg ñoo dóor ci teer bi nee nañu dañuy dóor ci teer bi duma la seetaan te chaque jour nga ñëw saaga ma ci ci live bu ma bu ma def ba noppi nga ni duma la seetaan léegi c'est quoi le problème quoi y'a quoi dama bëgg xam lan mooy problème bi léegi wala ñun ba ñuy ñëw di wax lii pour bës la woon lii du pour buzz lii pour joxe message la lii nii du pour leneen pour joxe message la joxe message message bi tasaare ko pour ànd booloo libi bi ñuy dem di nangu seen réew dañoo defoon ci fii lañ ko jaare woon réseaux sociaux mais Sénégal moom nee nañu léegi affaire bi moom débat bi bu mu demee ba jóg rek daañ ko indiwaat retourné waat ko 18 18 wala daañ ko retourné waat feneen ak feneen hmm? dégg nga man di wax ni man damay wax te yàlla tax defuma defuma lenn pour maanaam bu ma jugee fii ay nit gën ma cee bëgg wala bu ma jugee fii maanaam ma gën a amaat vie su ëllëg su ma ñëwee léegi danaa ñëw yàqate dana ma jaral ma yàqate ñi nga xamante ni sax ay soldaar la ñu woon nekk ci yoon wi danaa leen yàqate léegi na ma ñëpp ñëw seetaan na ma ñëpp ñëw seetaan bàyyi ñi ci des man may nit ku baax ji loolu nit ku normal sax doo ko wax doo ko jëfee nit ku normal dëgg-dëgg doo ko wax doo ko jëfee da ngay nekk ak seen brode di xeex ñëw leen ñu ànd doon benn ñun ñëpp dégg nga di leen leeralaat ne leen man man mii Akhenaton waxloowu ma sama waxi bopp laay wax dégg nga te li ma mën a seede ci moom mooy dégg naa mu ni ma mi ngi dem julli ji ñëwaat dégg nga su ma dégg ñu naan te kemit te kemit sax yéen waxu leen ma ne jullit la xamu leen lu mu doon yéen a ngi naan kemit te xamu leen lu mu doon mais kemit kay mooy maanaam nit ku ñuul xamu leen lu mu doon duma wax ci loo xam ne man maîtriser wu ma ko mais ñoo leen ko wax te dee te nee naa leen bëri na sëriñ ñu nekk Sénégal waxuma la kemit sax mais lu gën a yées kemit moo ma gënal sëriñ yooyu noonu. parce que dañoo mbubboo l'islam ba noppi Macky Sall teg système compalam saa yi compal saa yi ñuy duma saa yi ñu war a jël jël milliard jox ko population